mois de ramadan am ñuy dox ba vingt trois heures di wuti ay parrainage gars yi soskat yi yàqkat yi ne dañu dañu Macky Sall waaye moonte Macky ci boppam parrainage am baax te listam baaxu arrangement rek moo tax ñu récupérer listam normalement même bu jaaroon même bu doon même bu doon BAC wala BAC wala BFM même second tour du day lajj d'office waaye mu ànd ak benn jury boo xam ne dañ koy wax conseil constitutionnel ñu xaw ko dindi anonymat bi xaw ko repêché ko jaarale ko deuxième tour ñi doon wax ni ñun Macky Sall moo ñu defal liste jox ñu parrainage ñoom feebar boobu dab leen boo xam ne genre Covid la taamul vaccin mais conseil constitutionnel wutal leen vaccin récupérer seen liste bu Dakar waaye ñu desee liste nationale boo xam ne amul titulaire maanaam peeru dàll yoo xam ne benn pot dàll lañ la jox Sénégal lañu gis ñu nga dem marché neel wutal demal jëndal ma ay dàll waa ji indi la benn peeru gauche benn dàllu gauche càmmoñ moo dab waa picc mi beneen bi kon euh, Benno Bokk Yaakaar ñoom dàllu droite lañ leen jox mooy list boo xam ne titulaire la am amul suppléant Sénégal rek lañu ñu mës gis caaxaan yooyu te ñooñee ne woon ñun mëtaluñu yàlla def leen nattu atte ñoog ñoom parce que ñun ba ñuy déposé ñu ngi déposé samedi ba ñu woowee convoqué ñu à 11h ñu dem déposé ñu ne ñu muñ leen tuuti parce que am na ñu fi nekk ñu déposé à 17 ñoo ñu nekk nañ fa dimanche bi nga xam ne moo doon app bi ñu nekk fa ba mardi ay 1h du matin bu ñu bu ñu bëggoon. respecté woon seen bopp respecté sénégalais yi dañu waroon def wax lan lañ ko doon def ba une di du matin ak ban yoon moo leen ko may pas di wax ci nit ñi ñu ñëw ba toll fii tamit ci dernier virage bi di ngeen dégg ci réseaux sociaux yi ak yi lu lu ne ñu sosal gor yi taxaw fii ba bëgg a ëpp xelu ñenn ñi waaye ku dégg Marème Soda miy wax la damay commencer ci la plus jeune ba ci docteur Abdourahmane Diouf ba juge dem ko juge dem Cheikh Oumar gis ngeen leen dégg ngeen leen xam ngeen ni géej ngeen dégg meeting bu ni mel fii ci Thiès ànd ak xam-xam ak fit ak ngor bu wér péng kenn waxu fi kenn waxu fi waxu picc bu ma picc bi nag bu leen foog ne am na ñu may gaaruwaale kenn waxu fi aussi parce que xam ne xam nga da nga wax Sangomar docteur Abdourahmane waaye dafa am cheval fou boo xam ne bu gars yi ñëwee Sangomar ba virage bi moom day continuer ba bëgg nii ba mooy fasu Benno Bokk Yaakaar moom moom gars dañ ko xaw a doppee gars dañ ko xaw a doppee ba ñu ñëwee ba virage bi au lieu que bi ci boppam tamit dafa xaw a diis ba nga xam ne <laughs> parce que jockey bëgg nañ ci nag ku xaw a mel ni Thierno Bocoum waaye boo ñëwee continuer fas bi mbëkki virage mbëkki mur ba yow moom yaa yaa teg sa bopp mooy ñaari benn coalition moo fi nekk boo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu nee assemblée national Sénégal ñu yóbbu ko àdduna daal le monde entier ñu jox ko bu doon ay cabinet lañ ko jox ñu ne saytu leen ñii seen jaar-jaar voilà liste aar Sénégal voilà yeneen sept liste yi ci jaar jaaro politique ci personnalité ci angle bu ñu ko kii saytu leen ban liste moo xam ne moom moo gën ci assemblée réew moomu bu ñu ko joxoon ay japonais ñan la ñuy wax bu ñu ko joxoon ay chinois ñan la ñuy wax bu ñu ko joxoon Macky Sall sax ci boppam mu nekkoon opposition lan lay buñ ko joxoon yeneen coalition yi seen bopp bu ñu waxoon seen aqlay taala lan lañuy wax parce xam nañu ñu ci nekk du ñu ay como du ñu ay cuune du ñu warkat du ñuy combine bëre du ñuy baara yóbbu. Thiès dañ def attention bu baax ci suñu bopp gis nga fii dëkku bañkat la nangul nañ ñu ko. te heureusement élection locale yi weesu firndeel nañ ko de la manière la plus éclatante lu gars yi xamu lu gars yi mësuloon imaginer Macky di wax 56 plus 20 égale à 88 76 plutôt loolu la 56 wala 58 la wax mooy 76 noonu la wax gars yi ne ko da nga juum politique électorale 56 plus 20 peut être égal à zéro zéro mairie loolu leen Thiès tontu non donc cees wane na boppam bopp euh, dëkk bañkat la waaye bañ aussi bu ànd bañ boo xam ne dafa war a ànd ak xam lu ñu tànn lu mooy lan. parce que tànn koo xam ne xamoo ko xamoo mooy kan day jur rëccu bokk na ci li ñu war a tànn nga xam jikko ki ngay tànn xam jaar-jaaram booy jël un médecin wala ngay jël chauffeur. wala ngay jël leneen di nga xool lan mooy CVM ak ay profilam booy jël maire wala député baax na nga xam lu mu doon dal nañu élection locale yi wees tànn nañu ay maire le lendemain dañu ne kan mooy suñu maire loolu du tànn parce que boo naree tànn sa maire war nga xam kan mooy kan nar nañu tànn élection législative yi nar nañu ne waaw kan mooy député bu ñu tànn bi parce que xamuñu ko loolu bu ñu dalee bu ñu demee assemblée nationale yóbbu fa député yuy nelaw wala yuy saaga wala yuy xeex suñu responsabilité la te assemblée bi ñu jëm dafa nekk assemblée bu cruciale bu stratégique parce que ci la gaz bi ak pétrole bi la ñuy njëkk a commencé di ko exploité parce que aussi Sénégal dafa toll foo xam ne xale yi mun duñu muñ xam ngeen ni fii ñu taxaw bu doon ëllëg ci suba la ba bëccëg la da ngeen di gis ay dàll yuñ filal alors que fii c'est le cœur de dafa waroon nekk promenade des Thiessois war nekk jardin boo xam ne gars yi dañ fi fond di fi bàyyeeku di fi leneen waaye marché la la actuellement lal nañu ba lal partout parce que xale yi amatuñu xëy benn xëy moo fi ne dawal Jakarta benn xëy moo fi ne jaay kafe boo demee marché central boo laajee gars yu jaay fukki jaay ak yooyu boo leen wala foire yi koo laaj mu ne la ban diplôme nga am mu ne la am naa master barki démb dal nañu fële ci Euh, géejawaay marché bu ñu fa romb ak parcelle am déet ban diplôme nga am damay jaay café Touba ban diplôme la am ban diplôme nga am nga ne man maa ngi bac plus 2 maa ngi licence maa ngi master lan ngay def nga ne damay jaay kafe Touba loolu mënul wéy dëkk bu mel noonu teg ci situation yooyu c'est un pays en danger parce que xale yi mënuñu continuer di subir injustice gars yi yor ay milliards bi ko foowee di yor ay huit huit ak yooyu luy mun a corriger loolu mooy assemblée nationale boo xam ne député yi dinañ mun a réorienter budget bi jëmale ko pour vers les jeunes jëmale ko vers la création d'emplois bañ a les investissements contre-productifs et non productifs yoo xam ne ñu ngi koy gis jam ñaa jog feneen te ay yu bëri diil teg ko mbokki Thiès taxaw naa fii 2017 nee leen centre Ali Malick Kayre bi kenn du ko jaay démissionné dara boolewu ma woon ci élection législative lu muy sot parce que fi laa bokk sénégalais laa bu sénégalais yi di prononcé war naa taxaw du ma woon candidat du woon leneen am na ñu fi fekk xam ne ñaata meeting la ñu def ci campagne boobu am déet pour sotal Sénégal wax ni Malick Kayre dañu nangu mukk Benno Bokk Yaakaar gañ ko gañe ko parce que boobu dafa bëggoon fexeel Idrissa Seck daal di am nu mu def ak moom biir cees ndax xaalis tey kooku ñu doon sotal di ko bañal gàcce moom moo ñu bëgg a teg gàcce gannaaw mburoog soow mi gannaaw ba ñu gañee centre Malick Kayre bi dafa diw alal ju bari toog di woo gaay benn par benn di leen fay am na ku nekkoon ak ñun ci élection locale yi dem na am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi nekkoon nag man woo nañ leen jox leen xaalis ger leen fii ci cyber campus c'est-à-dire fii ci super campus lañ leen recevoir yow xam nga Amidou xam na ñu bëri ci yeen xam na fii ci cyber campus lañ leen recevoir ñii ay 1 million ñii ay 2 millions ger leen pour ñu pour lan pour jëndaat centre Malick Kaïré man nag li ma daan wax pardon pardon pardon pardon faut dama ni gars yi déglu leen c'est important li ma leen wax et dama bëgg dama bëgg mu leer dama ni la ma waxoon keroog laa leen di waxaat bu ñu gañee centre Malick Kaïré ñoom Benno Bokk Yaakaar bu ñu gañee Aliba ñoom Benno Bokk Yaakaar gañewuñu Thierno Sall parce que man la ma waroon def def naa ko fa ma ko waroon defee dama ni bu ñu gañee centre Malick Kayre bu ñu gañee Aliba bu ñu gañee Siré Limane du man la gañee parce que 21 jours a ngi nii nelewuma yendaluma fanaanuma amul fu ma dugal ci réew mi pour wax ak doomu réew mi lii mooy yoonu ngor bu fekkee nag gars tànn lu leen neex parce que weccit yi ñu leen di jox jaay seen bopp jaay seen ëllëgu doom ak seeni ngor kooku yi ñoom ak yàlla la ak seeni askan waaye man dama ci am benn gàcce parce que def naa la ma waroon def kooku bu leen wóoloo teg ay acte de noble dañ ko war a delloo acte noble tontu ko ci naka ci votel Aar Sénégal le 31 juillet parce que beneen liste bu ko tane waxuma kaw parce que dama ci bopp mais yéen ko gisal seen bopp Sénégal yëpp a ko seedeel seen bopp ci aqulay taala du ay liste soskat du ay liste ñoo xam ne dañ leen ñoom ñooy accuser nit ñi du leen neex mais bu ñu meloon ni ñoom du ñu leen sosal dañuy ne yow diw wuy ji nga tribunal ci lii diw yow wuy gi nga tribunal ci lii diw yow yaa ngi waaj a wuy ji tribunal ci lii mais ñun newuñu ci débat boobu dañu teg débat d'idées te pourtant loolu ñu may wax nii du sos de xam ngeen di wuy ji ne tribunal ay yoon yoon te du kenn du ñaar diw yow sa casier yàq nañ ko waaye ñun débat wuñu débat boobu pourtant ñoom ñoo ñuy sosal donc ñun duñu ay liste soskat wareel rawale nañu suñu bopp di wax loo xam ne ay waxu caaxaan la wala waxu terre à dañu wax sénégalais yi contrat de législature waxu leen doomu daara nu muy lan lañ ci def wax leen patriotisme économique lan la wax leen bu ñu demee njàng mi lan lañ ciy def bu ñu demee suñu contrat minier yi mboolem contrat yi lan lañ ci fas yéene def lan la ñu fas yéene taxaw napp yi nit ñi nga xam ne dañu nekk ci monde rural bi nga xam ne ñoom ñooy fay ndox lu ful ñaari yoon ba fukki yoon li li nit nekk ci dëkk yi di fay boo demee Lac de Guiers ñu tiim Lac de Guiers gi bu ñuy jënd bari ko ndox di ko teg seen saret ba mu mot un mètre cube lu ñuy fay c'est trois mille et quelques francs yow nga fay cent soixante cinq fii ci Thiès te lac de guerre bi mooy alimenter Dakar loolu jaaduwul